Ousmane Sonko n'a pas de programme et nous ne l'avons pas vu. Ah, Comprenez, vous il nous avait vendu ab le projet. ñu projet projet boo ça n'existe que sur leur imagination Gisso projet se projet la preuve barki Dembo Ndiaye Sen, Sen, soi-disant programme 2050. 2050. bi dama ans ma ñew pa bi da doon jappalé ñom Ousmane Sonko ak Passef pa bi nuyu ma di joy na ma baal ko lu xew papa mu ne ma ñi yàlla na leen sama ak dal ma ko lu xew mu ne ma Massaly man j'ai 82 ans ñi seen programme bi 2050 la jëm est-ce que dina ko fekkee ma ko da ngay jël sa at ans plus ko li dess nga yok ko muy 100 et quelques années pa bi yëkëti dalam sanni mako ko ko di nga ko mu ne ma ne fii lañ jëmee réew mi man du ma ànd ak ñoom programme Pastef ñetti mbir la le programme du parti Pastef s'articule sur trois points sos saaga sànq askanu Sénégal lii mooy programme Pastef mais non pas de problème. mais. programme programme mais unité parlementaire pour défendre la République. pour défendre les institutions de ce pays. pour défendre l'intérêt de toute une population. Man, n'ai pas besoin d'unité parlementaire président sénégalais bon te Ousmane moomu mooy Sonko Sonko mooy Ousmane moo waxoon grand traite moo weddi boppam Ziguinchor et je vous demande de retourner ngeen xool les propos de Ousmane Sonko yi mu waxoon grand théâtre concernant le général Kandé ak li mu wax démb ci moom à Ziguinchor moom moo wax moom moo weddi boppam ay waxam tontul na ko la mu wax la mu wax grand théâtre armé, puis armée bi le changement nous changerons. ko mu dem Ziguinchor wax pour empêcher l'installation du président Diomaye man il a accusé le général Kandé de coup d'état la def Sénégal man non la ko et c'est extrêmement grave dans un pays comme le Sénégal nous ne méritons pas un individu comme Ousmane Sonko qui est un danger permanent et nuisible à la population sénégalaise nit ku mel noonu tey taxaw accuser le général Kandé li mu doon wax su fekkoonte ne dëgg la général Kandé warta fanaan këram dañ ko waroon jàpp emprisonné ko poursuivre ko pour haute trahison man loolu laa gëm te loolu laa jàpp mais li muy def nii c'est extrêmement grave pour la cohésion nationale ils n'ont pas le programme sos lañ fi nekkee saagawaate sànq askanu Sénégal te loolu dafay arrêter. Sam sa kàddu seen programme wuyoo na seeni tur seeni programme rek wuyone na tour lañu wax def ko lepp ci deug jub jubal doxal ko askanu senegal diko ko gis te jox leen ñu majorité senegal inshallah, allah di ngeen ko xam. motax manela li rek warna tax man doomu alkatila j'ai beaucoup de respect pour les hommes de tenue mouy la police la gendarmerie. Mouille armée bi pénitence mouille douane mouille partout c'est cette tenue là qui m'a vu naître Moi, je defal li ma def ba ni ma tollu tey sanctionner sanctionné sanctionner sanctionner leen sanctionné dem Sénégal ce corps là ne mérite pas ça savons que nous dañuy sacrifier cette aduna pour le Sénégal de veiller à la sécurité de toute une nation il mérite respect et considération lii rek war homme de tenue war nga jël sa carte xagn ko parti passé parce que parce que l'Irak si ñak bi la jëm l'Iram liram si ñak bi la jëm li ñu gis ni dictature rampante moy waja taxaw Sénégal té bis bi ñu leen joxé majorité dañ ko dëggal kon secteur public bi public bi am nañu part de responsabilité ci toroxal bi nga xamanteni dem toroxal nañ ko ñaari commissaire de police jël leen seeni carte ngeen sanctionné leen Il y a un devoir de responsabilité pour la stabilité et la cohésion sociale